sallallahu alayhi wa sallam parce que football yombut surtout ak canicule bi tàngoor bi te xamoon nañ ne vraiment depuis trois matchs yàlla def na ñu ngi gagné xamoon nañ ne du yomb au fur et à mesure dina am fu muy daggee ñaan ñu yàlla mu dagg parce que dañoo bëggoon vraiment def carton plein ba nga xam ne incha allah équipe bi day mën a accessible en national 1 te yàlla daf ñu am dog-dog te mathématiquement dañoo waxoon su ñëwee fii à domicile on va essayer vraiment ñu gagné suñu match à domicile c'est vrai perte nañu tey mais on a su le faire deux fois à l'extérieur ba ñuy commencé dañoo waxoon suñu mënee am cinq points à l'extérieur mooy ñu am ay nul ci match yëpp kon yàlla def amagum nañ ci zéro victoire kon mathématiquement ba léegi ñu ngi ci lu ñu nekkoon c'est vrai que tey défaite bi gënaluñu mais on a joué aussi avec une équipe de Thiaroye qui a aussi vraiment dékkuñu mais aussi dafa am ay cassure amoon nañ si suñu moment fort ci la ñu encaissé but malheureusement pour ñun mais amoon nañu opportunité vraiment pour le mettre deux fois mais il faut ñu gën a altruiste encore beaucoup d'altruisme devant les buts jouer en équipe suñ ko defee rek vraiment mën nañu gën a dugal ay buts résultat yu positif day am nag de football mais le tubaab bi di c'est une défaite mais la défaite est une chose encore difficile mais nécessaire parce que dinañ ci mën a jàngat pour li di ñëw te mën nañ ci jàngat bu baax peut être suñ toogee corriger le négatif par rapport à li qui ñëw fii de jouer Inch'Allah, allah mën apporter vraiment le best rectifier aussi euh, li nga xam ne moom moo moo négatif vraiment pour avancer jàll ci match bi di ñëw. Hmm. Hmm. défaite bi fan la mën a yóbbu. waaw défaite bi ça nous arrange pas parce que fu ñu nekkoon baaxul tey on équipe bu ñu doon jouer tey moom moo ñu rawoon deux points mu gagné waat ñu fii te dañuy nekk à cinq cinq points deux c'est très difficile mais loolu ak championnat moo ànd dañu gën nañ deux fois gagné ñëw fii gagné kon tey suñu dikkaatee fii am défaite bëgguñu ko woon noonu ñu bëggoon vraiment gagné sa match là.

Ah, dañ ko préparé woon sérieusement pour ñëw fii nag vraiment am trois points yi te yàlla may nañu ko waaw. Euh, tey nga ñëw si euh, dëkk boo xam ni tey salaire bi daanaka am na lu mu joué ci yow euh, tey nga fubale ko nan ba jël li nga xam ne moom moo di trois points yi trois points yi fii si Mbacké. waaw gestion rek parce que premier mi-temps bi ñun xam nañ ni ñoom dañuy pousse donc dañuy taxaw gérer léegi deuxième mi-temps bi ñu ñu jéem a ñu ni tenter suñu chance te noonu la demee yàlla dimbali ñu ñu am trois points yi. Mmh, victoire fu mu la yóbbu waaw pratiquement ñun daal ñoo ngi liggéey daal ñoo ngi liggéey pratiquement mën nañu yóbbu ci podium bi mais nag ñoo ngi liggéey nank nank calmement préparer suñu adversaire bi di ñëw mhm. stade Thiaroye lan mooy forum saa yu ta ak avec Ndiobé Mbacké weeru koor da koy dóor loolu koor lan la sa secret la waaw non xëy na loolu non loolu xëy na lu ñu fekk la rek xëy na lu ñu fekk la parce que am na année boo xam ne man en tant que joueur waaw ñoo yóbboon Mbacké en division inférieure quoi mhm. voilà xëy na mu demee noonu daal mhm. kon baax na kon merci hein. merci